16 597 10 30 616 597 1030 24/7 24 heures sur 24 loolu nag bu mënee am gannaaw ndimbalu yàlla mbootaay gii di Islamic Cultural Foundation of America di jàkka yi di masjidul muhajirin wal ansar fii ci Staten Island Chair, 740 Delafield Avenue, Staten Island, New York, 10310 moo tax mu mën a am jàkka ji nag service yu bëri lañ fi jagleel julliti àdduna rawatina julliti Amérique rawatina julliti New York five daily prayers juma ak service yi ko topp vicarcia juma weekend programmes pour xale yi ak after school programme ñuy mën a defee seen homework di jàng tamit alquran ak islamic studies under lectures yu bëree bëri yu ngeen mën a bénéficier ci mbootaay gii di Islamic Cultural Foundation of America moo xam ngeen nekk sur place wala ngeen nekk à distance à la radio wala suñu chaîne télévision bi ci YouTube bi ñuy ñaan ñëpp ñu subscribe maanaam abonné ci ngir mën a bénéficier ci lectures a xutba yiñ fay dugal yëpp dem leen youtube point com ngeen search ICFA TV ICFA TV ngeen mën a am lépp loo xam ne lu jógee ci mbootaay gi la te ànd ak njëriñ yii nag mbokk yi mënul am mukk gannaaw ndimbalu yàlla te jullit yi bokkuñu ci maanaam jàppalewuñu ku ci bëgg a jàpp na dem ci icfa online dot com donate icfa online dot com donate wala ngeen dem ci paypal dot me slash ikfa paypal dot me ikfa wala ngeen yónnee seen ci one zero zero maanaam ci PO box bi one zero zero two two two Staten Island New York one zero three one zero wala ci adresse u jàkk ji nga xam ne tudd nañ ko mën ngeen ñëwoo ci seven one eight four four eight five two five two three four seven five nine six twenty thirty six ICFA ubbi na buntam képp koy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi jërë ngeen jëf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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now you can listen to our Fakir Muhammad Saha Tijani along with the greatest scholars of our time on Tijani International Radio every day at www.icfaonline.com, at www.muhammadsaha.com, by dialing your phone at 401 347 07 for one. Or by downloading the Tijani Radio application onto your smartphone or computer. For your questions about Islam, you may call 347 596 2036 or email us at icfaonline at gmail.com. Spread the word by sharing this message with your friends. wasalaam wasalaam wasalaam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

ولم ترضه ونسيناه ولم تنسه وحلمت عنا مع قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة بعد جراءتنا عليك اللهم إنا نستغفرك منه فاغفر لنا allahuma wa ma amilna min amalin tardaahu wa waadtana alayhi thawaaba walgufraana fa taqabbalhu minna wala taqtac rajaana minka ya ya karimu ya arxama arraximin wa salla allahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama mbokk yu tedd yi gannaaw buñ leen nuyoo ndokkeel leen ci njeexitu at mi ak ci tabbite at mile ñuy ànd ak yéen ñaan ñaan gi ñu ñaan ci lakku yaaram wax nañ ni ku ko ñaan ci bés bi njëkk ci tamxarit nee ñu seytaane dana dajale aw nitam wala ay gaayam wala mbooloowam ne leen kii at mi yépp musiba mu ne defloon nañ ko ko waaye ñaanam gi tax na lépp lu defoon yàqu na te moo di ñu wax suñu borom ne ko yow suñu boroom lépp loo xam ne jëf nañ ko ci at mi weesu te gërëmuloo ko ñu fàtte ko te yow fàttewuloo ko nga baax lewet ba mbugaloo te am nga ca kattan boo ca yemoon rek muy mbaax gu ëpp waaye nga invité ñu pour ñu tuub gannaaw bu ñu ñàkke jom ba wane njàmbaaru mooy la te jàmbaaru dañu ñàkk jom rek yàlla lii yëpp ñu ngi ciy tuub lépp loo xam ne mos nañ ko jëf ci mbaax te nga gërëm ko nga dig ñu ca fay ak njëkkal yàlla nag ñu koy nangul yàlla yàlla bul dagg suñu yaakaar ci yow yow mi tedd te ku yéeram yaa ko ëpp yërmande mbokk yi bu ñu àndee ñaan ñaan goog ngeen may mama jéggalul so jéggalul sama bopp sama borom ndax yi mu dajale ñaal ma yépp daf ma din daf ma may bindeef mu nekk boo neexoon boole ma ci aalamul adami ñàkkal ma jox ma niamatul iyaad jox ma niamatul imdaad def ma may nit def ma it ma bokk ci xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ki gën xeet wi ma boole muy xeetam di xeet wi gën ci xeet yi jaarale ma ci ay wayjur yu nga xam ne it xaw ma ku leen gën tedd ñoomit it lu ne ñu daj ko ngir def ci man diini def ci man alquran def ci man xaw xamu lislaam def ci man jikko ànd ak loolu yëpp suñ borom ñàkk jom ñàkk teggin ñàkk kersa gàtt xel topp sama bakkan ak seytaane ba fu ma toll maa ngi lay mooy ci wax di la mooy ci jëf di la mooy ci xaal ak ci yëg-yëg di la mooy ci say ndigal ak ci say tere waaye di la mooy ci say mbindeef ba ci soppatoo nu ca warta soppatoo sama borom maa ngi ci suuf di la wax baatu maa ngi ci suuf yow sama borom di la jéggalu maa ngi ci suuf di la tuubal maa ngi ci suuf di la sukkal di la raamal di la rukuwaal di la sujjootal di la wax ni lépp mën a boo ma ci sama bakkan dimbalewu ma ci cheytaane dinaa taseeg yow te fekk kenn du ma gën a texee di maa ngi lay jéggalu di la ñaan tawfiq ba lépp loo xam ne bëgg nga ko ma defee ko ni ko bëggee lépp loo xam ne bañ nga ko maa ngi lay ñaan nga dimbale ma ba duma ko mën a def lépp loo xam ne nga neen la yàlla nga ma ca sumbar gën lépp luy musiba yàlla nga ma tàqaleeko maa ngi lay ñaan sama bakkan bi nga notal ma ko notal ma seytaane ba dootuñ ma mën a moyloo ma sama bakkan notal ma seytaane ba dootuñ ma mën a ma sama bakkan bi notal ma seytaane ba dootuñ ma mën du ma moyati mukk sa du ma defati mukk sa tere maa ngi lay jéggalu yaa sama borom yaa rasulallah maa ngi lay jéggalu xéewal yi ma yàlla defal yépp ci sa barke la ma ko defale samay wayjur nal ma tur wi gën ci tur yi muy sa tur ànd ak loolu fu ma dem maa ngi doxalee noo xam ne jaaduwul ku tudd sa di doxalee noonu maa ngi doxalee noo xam ne jaaduwul kuy askanoo ci yow di doxalee noon maa ngi doxalee noo xam ne jaaduwul ku bokk ci sa xeet di doxalee noonu waxoon nga ne ku fi nekk na jotal ñi fi nekkut ma waroon fu ma dem wane fa le bon exemple ci sa diine wane fa sa jikko wane fa sa ngor wane fa sa baax wane fa sa tedd nga waaye fu ma dem waxee fa defee fa melee fa noo xam ne du la bégal mukk ñu ne kii ci sa xeet la bokk wala yow lañ ko tuddee maa ngi lay jéggalu ci ñàkk gi ma ñàkk fay teraanga ji ñu defal sa dund sa nga sacrifier ko ndax ñun xamoo lu neex xamoo lu nooy xamoo lu feex juróom benn fukki at ak ñett rek nga dund jaaro ci ndaw mosoo fo mosoo caaxaan mosoo mbóosóor lu dagan sax mosoo caa sonal sa bopp sàkkantuma la lu daganut keroog bañ la waxee yaa ayyuhal muzammilu qum wax la yaa ayyuhal mudathiru qum ba léegi toogoo yaa ngi taxaw buñ ne la kay noppalu nga ne noppalu xamatut te loolu yëpp defuloo ko ngir sa bopp ndax li yàlla baax la yëpp jox na la ko waaye yaa ngi sonn ngir message boobu des ci xol yi yaa ngi sonn ngir jikko yooyu des ci cër yaa ngi sonn ngir texe gi nga xam ne moom la la yàlla texeel nga texelee ci ñëpp jikko yi nga jàngale yëpp fu ma toll di ko waxtaanee te meluma ca nen yi nga tere yëpp fu ma toll di ko waxtaanee te jëfewuma ca dara ni nga ko tere maa ngi lay jéggalu ci loolu maa ngi lay jéggalu ci ñàkk gi ma la ñàkk représenté na mu waree di ñaan ci sa barke di ñaan ci sa maqaama di ñaan ci sa daraja yàlla setal ma ci bépp jikko joo xam ne ju bon la setal ma ci bépp melowoo xam ne wu bon la waaye làmbee ma bépp jikko boo xam ne bëgg nga mu jikko ko ba fu ma tolloo di seet foo tegoon sa tànk ma teg ko fa fu ma tolloo di seet foo doon bañ a dem ma bañ faa dem maa ngi ñaan ci sa barke yàlla may ma loolu maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma sa boroom mu boole ma ci ñi nga xam ne goreel na leen ci safara goreel na leen ci sànjam te dootul leen sànjati mukk boole na leen ci ñim bëgg di la ñaan yow yonantu nga boole ma ci say soppe di la ñaan ngay wéral sama askanuk ci yow di la ñaan nga boole ma ci sa daairatu di la ñaan nga boole ma ci ñi nga xam ne seen bëtu xol ak seen bëtu gis dootu tàqalikook yow mukk fuñ toll di la gis moo xam ñuy nelaw moo xam nelawuñ maa ngi lay ñaan nga may ñu lool ci sa mbaax ak nekk gi nga nekk di xalifa yàlla al mutlaq ak nekk gi nga nekk di mahallu nawarihi tabaraka wa taala yow yonentu boole ma ci ñi nga xam ne fuñ toll ñu ngi julli ci yow fuñ tollu ñu ngi lay gis di la bégee nga boole ma ci ñi nga xam ne wuutu nañ la ci bépp martaba ci maratibul xali xilaafa ba képp koo xam ne jëflante na ak ñoom texe àdduna ak àlaxira ba képp ko waxante ak ñoom texe àdduna ak àlaxira yàlla na nga boole ci ñooñu maa ngi lay jéggalu maa ngi lay jéggalu di sa saxaaba yi ak sa ñooñ yi nga xam ne gannaaw buñ fi jógee ñoo def lu nekk pour diine jot si ci ñun ñoo def lu nekk pour kéeféer jaa ci àdduna ñu lay wax ne flambeau bi nga xam ne ñoom lañ ñu bàyyee gàttañ lu nañ ci ñu ngi leen di jéggalu ñu leen di jéggalu waaye ñu ngi ñaan ci seen barke fépp foo xam ne yii ni ngeen dine xàgg fa yàlla dimbale ñu bañ am jomuk àggale ko fa te yàlla def ca tawfiqam fépp foo xam ne mosu leen faa taxaw ngir ne yonantu bëggutoon ngeen taxaw fa yàlla dimbalañ ci suñ bakkan ak ci suñ ci saytaane ba duñ fa taxaw yan nañu yàlla defal loolu ci seen barke yéen asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yéen xulafaawu rasulillahi yéen sayduna abu bakrin yéen sayduna umar yéen sayduna uthman yéen sayduna ali yéen fukki yiñ bégalee aljanna yéen ñoñam ay soxnaam nday Aïcha toog nday Xadija toog nday Xafsa toog nday Maymuna toog nday Zeyna boog nday Sofiya toog nday Sawda toog soxna yonent bi yëpp sallallahu ak njabootam gu rafet gi nday Fatimatu ay magam nday Zeynabu nday Roqiyatu sayduna Qasim sayduna Abdullahi sayduna Ibrahim saydatuna Umu Kulsumi ak lépp lu taq ci yéen muy suñu sang yi sayida shababi ahlil jannati sayidna xuseyn ak sayidna xasan magam ak ñi ca topp yépp ci ahlu bayti rasulillahi ak saxaaba yonent yam gërëmoon ca Badar saxaaba yonent ya teewoon Uhud ya teewoon ca bayatu ridwan ya teewoon ca fatx makkata ya teewoon Tabuk ya neewoon Makka ak Madina yi nga xam ne gannaaw yonent bi bàyyi nañ fi Makka te ku fa julli genn julli yàlla defal la muy téeméeri julli ñu bàyyi fii madina gi nga xam ne yonantoo nga fa jaamu fa yàlla yamut ak benn ba jaamu yàlla dee fa garanti la ci shafaatu rasulillahi ngeen bàyyi fa lépp bàyyi fa sax jëmmi yonantu bi sallallahu alayhi dugg ci àdduna bi fu yonantu bëggoon diine yàgg fa ngeen yàggale ko fa ñu ngi leen di jéggalu di ñaan ci seen barke yàlla yéegee ñu ci seen maqaam xam gi ngeen xam ne bu ngeen toogee foofu la ngeen di am ci yéen lay am waaye bu ngeen génnee bokk kook nit ñi tax ngeen sacrifier yool yooyu le ñu ngi ñaan yàlla mu fayal ñu leen niñ koy ñaanee mu fayal ñu yonantu sallallahu alayhi wasallam gën ci lu mos a fayal ab yonantu aw xeetam suñuy waajur bu dee suñ yaay ñu ngi lay jéggalu ñu ngi lay jéggalu ci gàttañ lu giñ gàttañ lu ci sa xaq ba nga jógee fi te ni nga bëggoon niñ mel meluñ ni bi fi jógee it ni nga bëggoon ñu mel melaguñ ni ñu ngi lay jéggalu ci ëmb gi ñu ngi lay jéggalu ci jur gi ñu ngi lay jéggalu ci nàmpal gi ñu ngi lay jéggalu ci cofeel gi nga xam ne amuloon benn condition amoo ci woon it benn retour booy xaar ñu ngi lay jéggalu ci ñàkk giñ la ko ñàkk delloo ñàkk giñ la ko ñàkk delloo ci sa bopp ak ci sa njaboot suñu bàyyi lu ne def ko ko ju ñun ci suñ njàng ak ci suñ yar xaar nga it mat ci ñun bi fi jógee say xarit ak say soppek say njaboot wax na ñu ne barab boo musa dem ak saa yoo demee Makka ak Madina di joxe ñaan ngir ñu ñaanal sa doom ju xeebu ji ngir ne danga am ci moom yaakaar te yaakaar googu lañ ce doon xaar ba léegi defuñ ko gàttañ lu googu ñu gàttañ lu ñu la ciy jéggalu ñu ngi lay jéggalu di jéggalu sa njaboot di jéggalu suñu yaay di jéggalu njabootam di jéggalu sa njaboot gu mag gu góor gi ndax gannaaw bi fi jógee fañ la teg lañ leen waroon a teg te teguñ la suñ mag yu jigéen ñi naka noonu fañ la yow yaay ak baay lañ leen waroon a teg teguma leen fa maa ngi leen di jéggalu yéen waaye di leen jéggalu ñoom suñ mag yu jigéen yi nga xam ne ñooy suñuy yaay di jéggalu suñ mag yu góor yi nga xam ne tey ñooy suñuy baay di leen jéggalu ci manque de respect di leen jéggalu ci manque de considération leen jéggalu ci tuuxi doone yi ñuy dugg yëpp te bu ca nekk du rafetal seen der ñoom ndax ñoom rek lañ am ñoomit ñun lañ am di jéggalu it suñu rakk yu jigéen yi ak suñu rakk yu góor yi nga xam ne gannaaw baay ak yaay ñoo waroon a nekk seeni baay ñoo waroon nekk seen yaay ñoo leen waroon toppatoo ci seeni sëy ñoo leen waroon toppatoo ci seen njàng ñoo leen war a toppatoo ci lépp te ñu gàttañ lu ci bal lañ ca war a def defuñ ca dara ñu ngi leen di jéggalu di ñaan suñu boroom nag mu dooleel ñu ba lépp loo xam ne war nañ koo taxawee ci yéen suñuy rakk yu góor lépp lu ñu war a taxawee ci yéen suñuy rakk yu jigéen lépp lu ñu war a taxawee ci yéen suñuy rakk mag yu góor ak yu jigéen yàlla dimbale ñu bis ki tey ñu mën koo def ta nangu koo def te mu jàppale ñu ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam di jéggaloo suñu sëriñ di suñu baay waaye buñ ko jéggaloo en tant que baay ñu jéggalu ko it en tant que sëriñ ndax moo ñu boole ci mbooloom Cheikh Tidiane mais Mawlana Cheikh al Islam Alxaaji Aliyun Saaxo di ko jéggalu ci gàttañlu giñ gàttañlu ci wirdo yim ñu jox ak ndigal yim ñu ci jox gàttañlu giñ gàttañlu ba defee wuñ ko nuñ ko war a defee di jéggalu Cheikh Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nga xam ne mooy ku taayal yonantu bi di aynul wilayati mahdul fadl boole ñu ci te ba léegi représenté wuñ ko nañ ko war a représenté ci àdduna bi jàngale wuñu xam niñ ko war a jàngale waaye sax jëfee wuñ ko niñ ko war a jëfee ñu ngi cay wut cot cot loo ñu ngi cay wut farfarloo ñu ngi cay wut ku ñuy bëgg ak ku ñuy bañ te loolu lépp ñàkk teggin la ci xam-xam goo xam ne jóge na ci ñun ñu ngi lay jéggalu yow Cheikh Tidiane radiyallahu anhu di jéggalu it sa ñooñ tariqa waaye di jaarale jéggal li ci ki nga xam ni moo ñu booleeg yow suñu sëriñ alxaaji Alioune Sakho ñu ngi jéggalu ki nga xam ne moom lañu suñ borom booleel mu jural ñu suñuy doom muñal ñu suñuy coono muñal ñu suñuy naqari deret ki nga xam ne du nelaw te xamul ci luñ ne du lekk te lekkuñu du naan te naanuñu fu tollu toll mi ngi ñuy nemmeeku juróol ñu njaboot ni métier mu boole ca di leen nàmpal te uh, joxuñ ko xaq ja ca war bu leen di sang te joxuñ ko xaq ja ca war nga leen di uh, wodd ak di leen fóotal di leen toggal maak ñoom yépp te li ma war a def ci xaq jooju le defuma ko dépense bi ma la war a jox sax matut toppatoo gi ma war a toppatoo matut gisante gi ma war a gisante ak yow matut bu tayee maa ngi fii bu subaa maa ngi fële ànd ak loolu yëpp nga koy muñ di muñ sama naqadi deret di muñ sama bari affaire di muñ sama ñàkk tekkin ak sama ñàkk kersa ak sama yaradiku ak sama bari wax yii yëpp nga koy muñ yow sama soxna maa ngi lay jéggalu maa ngi lay jéggalu te ñaan sama borom mu dimbale ma ba xaq yi nga xam ne moo war sama diggante ak yow yëpp mu tàggat ma ba ma mën koo def na mu waree maa ngi lay jéggalu te ñaan sama borom mu tappe xol yi tàppe xolu njaboot yi ba lépp loo xam ne suñ borom bëgg na ko ci ñun mu gis ko ci ñun di ñaan tamit njaboot ki nga fi am yàlla barkeel ko te may la geneen njaboot te ñooñ ñëpp yàlla barkeel leen may ko jullit yëpp maa ngi lay jéggalu encore une fois di la jéggalu ci yéex a jéggalu gi di la jéggalu ci xam gi ma xam ne jëggalu gi yeggut fa mu war a yegg defeewu ma ko it na ma ko war a defee maa ngi jéggalu di jéggalu samay doom ngir ne baay bi ma war a doon doonu ko ni mu war a toppatooyee seen yar ak seen njàng ni mu war a toppatooyee seen lépp defewuma ko noonu maa ngi ciy jéggalu di jéggalu samay bàjjan di jéggalu samay bàyyitax di jéggalu samay tànt di jéggalu samay nijaay gannaaw baay yaay lépp loo xam ne waroon nañ ko taxawee ci seen xaq man la war te taxawewuma ko maa ngi ciy jéggalu maa ngi jéggalu samay xarit yi nga xam ne fuñ toll ñu ngi may bégee bu ñu sañoon lu baax rek la ñuy ci man te bés bu set ma mel noo xam ne dana tax mu gàccal leen ci kanam ñi nga xam ne sama matadi ak sama jikko ju bon tax na ñu def ma noon te dëgg-dëgg ñooy yey ndax ku xool ni ma mel doo ma def xarit waaye ñoom ñi nga xam ne nag malgré loolu yëpp ñu ngi ma bëgg te fu ma toll di leen décevoir maa ngi leen di wax samay xarit maa ngi jégalu maa ngi ñaanit sama borom dimbale ma ba fi ngeen yaakaar ne war naa faa mën a yegg rafet njortu ngeen am ci man yàlla dimbale ma ba ma yegg fa ba dootu leen gisati dootu leen déggati dara lu leen naqadi lu jëm ci man képp kuy sama xarit ba samay connaissance wala koo xam ne it jàppee nga ma noon te maa mel nu tax nga jàppee ma noon de bu ma juboon du ma am noon bu ma juboon du ngeen ma bañ maa ngi leen di jéggalu di leen wan ne man de teeluma kenn dara waaye nag li ma ñëpp téyeli foog naa ne lu jaadu la ndax ma toll noonu su ma meloon na mu war a mel konoon xëy na du ngeen ma noonu lépp loo xam ne it mos naa jógee ci nit moo xam wax la wala jëf jum foog ne warut ma koo def wallahi mérité wu ma sax di ko jéggal ndax xam naa ne mbon gima ma bon ak ñàkk gi ma ñàkkee taxawee li ma yàlla digal ci la may wane as lëf rek luy tax ma war a dëpp te lam baale bari na wa yaafu an kathir jàpp naa ne mbindeef yëpp ay loxo yàlla lañ yu may jubbanti ak di ma wan ne waruma defee ni naa soppeeku waaye gisuma kenn ci ñoom ne lor jóge na ci moom dëgg-dëgg waaye dama gis ne rek sama borom moo may jubbantee ci ñoom moo tax amul kenn koo xam ne jàppal naa la loo ma mos a wax wala loo ma jëf wala loo ma mos fasal ñi nga xam ne ñoo ak ñoom ñoo bokk daara ji ñuy ay ilimaan wala ñuy ay asatisa te léeg-léeg ma doxalee nu foog nu tax mu mel ni damay wujjee ak ñoom wala damay rawanteeg ñoom wala damay diiranteeg mbagg ñoom wallahi du ngeen sama moroom ci benn fànn yéen a ma gën fuuf man mérité wu ma sax di wax ci diine dafa di rek yàlla moo ma nattoo ma ne ci waaye ku mel ni man warta wax nit ñi sax def leen wala bàyyi leen ndax sama bakkan ak sama saytaane doy na ma lépp loo xam ne gonge ko ne ci man mu jëm ci yéen ma xam ko wala xaw ma ko ma wax leen ko ngeen dégg ko wala ma jëwee leen ko ngeen jot ci maa ngi leen ciy jéggalu ma wax leen ko wala waxuma leen ko jot ngeen ci li ma wax wala jotu leen ci maa ngi ci jëkkalu di leen sukkal di leen raamal di ñaan yàlla ngeen jéggal ma tey ñaan yàlla yit bés niki tey mu may ma mët ak jub gu tax duma waxati wala jëfati wala melati nenn nu safaanoog ni ma war a mel ci maa ngi jéggalu ci ñi nga xam ne it ñu ngi may dégloo moo xam ci rajo bi may wax la wala ci télévision la wala ci jàkka yi nga xam ne danaa ciy dem di ca xutba wala ci suñ jàkka ja wala école bi nga xam ne danaa fay jàngale ci lépp loo xam ne def naa ko ci wax wala ma def ko ci jëf wala ma mel ko ci melokaan woo xam ne dëppoowut ak teggin wala loo xam ne def naa ko ma wax ko mu le euh, dévier leen ba la ngeen waroon a xam ci masala mi xameewu leen ko nangeen ko waroon a xamee wala ma waxee leen ko nu ñàkk teggin ba na ngeen ci waroon a jëriñoo jëriñoowu leen ko ci maa ngi ciy jéggalu maa ngi jéggalu ci képp koo xam ne mos na taseeg man wan ma ak cofeel moo defanteeg yow jëf joo xam ne wala ma waxeeg yow wax ju sedd joo xam ne dana la turn off wala dana la décourage wala dana la bett maa ngi ciy jéggalu moo xam maa tey moo xam teyuma ko mbokk yi ni ma jéggaloo nii ak lépp loo xam ne ñaan naa ko sama borom ñeel ma maa ngi koy ñaan ñeel samay soppe maa ngi koy ñaan ñeel àdduna bi maa ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu ñëpp jéggal boole ñu defaral ñu suñu zahir boole ñu defaral ñu suñu baatin boole ñu ci ñi nga xam ne at bu jeexee danañ ca jàngee danañ ca xalamee danañ ca réccoo danañ ca fexe nekk beneen nit sama borom de dafa wax yaa ayuha alladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li gadin wattaqullaha inna allaha xabirum bima taamaluun yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te bakkan bu nekk na xool la mu jëfal ëllëg man de suma xoolee sama bakkan lim jëfal ëllëg dara baaxu ci moo tax maa ngi ciy jéggalu moo xam lu ma def sama borom la wala lu ma def jaam ñi la ci jëflante bu moo nag moo xam ci waxtaan la moo xam ci njëndante la moo xam ci jaayante la moo xam ci rombante la moo xam sax ci dawal oto la kalaksoné fu ma warul la wala wax nit ku ma duble wala mu def nu nu ma foog ne waru ko def ba ma waxeek moom nu ma warta waxeek moom yëpp maa ngi ci jéggalu suñu borom ci jéggalu jaam yi képp koo xam ne it def naa ko te njëggal li jotut ci moom gi jotut ci moom wala def diis na ci moom maa ngi ñaan yàlla jéggal ko jéggal ñu boobu yowmal xiyaame du am dara lu muy soxla bay tax moom topp ñu ne yàlla buñ yóbbaale yowmal xiyaam benn bakka suñ digganteeg suñ borom wala ci suñ digganteek suñ morom mbokk yi sama borom subhaanahu wa taala dafa bëgg jamono bu nekk ñuy xool suñ bopp xool suñu jëfalin xool suñu doxalin xool suñu jëfa jëfandiku ndax noonu la bu dee noonu ñu continuer ci bu dee du noonu ñu soppi ko xool suñu waxin naka noonu moo tax mu ne bakkan bu ne na xool la mu def ngir ëllëg ku nekk rek mën nga xisaab sa bopp moo tax sama borom bu yomal qiyaamee dafay wax iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al yawma xasiban jàngal sa téere bi tey doy nga sa bopp aji regle ku nekk ndeke yaay xisaab sa bopp naka lañ ciy muccee nag mooy ñu xisaab suñ bopp léegi xaasibu anfusakum qabla an tuxasabu wax nañ ne Seydina Omar daan na wax ne na ngeen réglé seen bopp njëkk bés ba nga xam ne des leen di réglé yaa ayuha alladina amanu udxulu fi salmi kaafa yàlla nee na nañu dugg ci jàmm gi bam jeex takk nañ dugg ci jàmm ji ba mu jeex nan lañuy duggee ci jàmm ji mooy nañ nekk ci jàmm ak yàlla ba duñ ko moy baatu lislaam mu utiliser ko fi baatu silm ndax ca la jógee mu won ñu ne dañoo war a nekk ci jàmmoo ak yàlla ba duñ ko moy nekk ci jàmm ak suñ bakkan ba duñ ko defloo musiba ndax moom mooy yëg mbugal ma gisuloo lu la mënta métti boo nelawee rek mooy yàlla nelawloo sa bakkan bu ko defee rek dootoo ti métit ba allahu yatawaffa lanfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha nañ nekk ci jàmm ak suñ cër yi di leen tuddloo yàlla te di leen toppaloo yàlla ndax ñoom luñ bëgg rek yàlla jox na ñu iraada boo xam ne bu ne suñ cër yi kun rek fa yëkkul soo bëggoon a dox léegi doo wax sa tànk bi dégg nga doo ko yëgati ak say loxo pour mu jóg doo ko sax wax jogal dangay nammu rek tànk ba jóg naka noonu cër yëpp cër yi nag mbokk yi ñu ngi ñuy topp waaye mën naa am ñu ñuy rëbb su fekkee lañ ñuy toppee ñang ngi cay mooy suñ borom subhaanahu wa taala lii wane ne ñu ngi ñuy rëbb mooy keroog bi nga xamee ne sama borom dindi na pouvoir bim ñu jox ci ñoom ñu commencé di seede against us lépp loo xam ne ñu ngi ko doon def ñu ngi leen ko doon def loo yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yacmaluun yawma taati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha gis nga yawmal qiyaama sama borom nee na dafay tëj gémmiñ yeneen cëri ku nekk wax la nga defoon yowmal xiyaam sama borom nee na ku nekk danga nga xuloog sa bopp ruux bu nekk dana xuloog jëmmu jëm newoon naka lay amee ruux dafay wax sama borom mankat maa ngi woon ci sa xadara xawma ma luy mooy ba nga dugal ma ci jëmm ji mooma mooy loo jëmm ji ne yàlla man jamaat laa woon dund ma woon sax bi nga dugalee ci man ruux moo ma yëngal ba mu ba mooy looma ibnu abbas ne sama borom dana leen laaj ab lafañ ak ab gumba buñ nekkoon ci tool buñ moomut gumba gi mënta gis meññet waaye lafañ bi it mënta jot meññet ñu waxtaan ñoom ñaar ba déggoo ci kàddu gumba bi yenu lafañ bi lafañ bi dagg meññet mi ñu bokk lekk ana kan moo am toor ñoom ñaar ñëpp kon yéen ñaar ñëpp am toor yal na yàlla jubale suñ bakkani ak suñu ruux yi fii ba ruux yi jël bakkani yóbbu leen ci xadara yàlla bu sell ba te bañ a yëg neexitu kaso gi ba des ci bakkan bi moog ñu moog bakkan bi ñu ana dem safara wala iyaadu billahi ya ayuha ruux hal tarda mujawaratan ala dawaabi li hada almudnibi alkadiri alasta kunta ولا جسم تساكنه ألست في حضرات الله فادكري حتى جعلت بأمر الله في قفص ليبتلاك فكن من خير مختبر فكن من خير kon nag nañ nekk ci rafiyatul islaam mooy lu ñu dugg rek nañ ca duggeeg lislaam bam jeex takk udxulu fi selmi kaafa te lii nag yàlla nga ko wax ci alquran gannaaw bumu catégorisé nit ñi ne ñeenti nit am ki nga xam ne ba àdduna rek lay ñaan kooku amul benn cër ci àllaaxira ak ki nga xam ne bëgg na àdduna bëgg na àllaaxira mu ne dana jëriñ ak ki nga xam ne àllaaxiraam def ko jaay jëndee ko àdduna kooku gën a xal mu ne ak ki nga xam ne nag xoolul àllaaxira xoolul àdduna yàlla rek la gis ibtixa amarbaatillah yar nañ ci yàlla boole mbokk yi ndax bi dugg ci sëy dañ ci duggee yàlla wala dañoo amoon beneen agenda ci sëy suñu liggéey naka noonu suñu bépp jëf ndax bañ cay dugg dañoo jiital yàlla wala dañoo jiital leneen buñ jiitalee yàlla udxulu fi selmi kaafa silmu yàlla dinañu xaar buñ jiitalee leneen nag danañ gis musiba wata buñ tawat wal iyaadu billahi tabaraka wa nañ xisaab suñ bopp ba lépp loo xam ne jëf nañ ko ci mbaax ñu xeeb ko te dëgg-dëgg luñ def rek mën nañ lu ko ëpp te ñu réccu lépp loo xam ne faat nañu te tuub ci li nga xam ne wante nañ ko te fas yéene bañ caa dellu borom xam-xam yi ñu ne juróomi yëf moo gën a rafet ci yëf yi jaam bi jëf ba ca njëkk albukaaw a dunub jooy ngir bàkkaar yu bari yiñ def wa islaaxul uyub yéwénal ayib yi nga xam ne nee na ci ñun wa taatu allaamil xuyub topp yàlla mi nga xam ne ku xam kumpa xam na ko ku ko xamul moom xam na ko wa jalaau reyni anil qulub fexe ba kiiraay gi nekk suñ digganteeg suñ borom ñu dindi ko ndax mbugal yépp kiiraay moo cay cosaan kalla innahum an rabbihim yawma idin la maxjubuun moo tax thumma innahum la saalul jahim xaytu waqaa al xijaabu waqaa al adaabu fukki raay am rek mbugal am fa wa an laa takuuna li kulli ma tahwa raku te fexe ba duul ne loo bëgg rek ne ca seetal na ko yàlla bëggee yàlla nañu ko yàlla may ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu duggee weeru muharram wi nga xam ne bokk na ci weer yi gën tedd ak tuub liñ def waaye ak tamit yaakaar njëggalu yàlla ndax yiñ wax ne ko ci def yëpp mu jéggal la nañ fexe buum ñu faat teñ def ko te yaakaar mu jéggal ñu te nitu yàlla mu lu bari sabab rek dafay bari mu ne moo tax ñu yaakaar ne yàlla danañu jéggal ndax sabab yu njéggal dañoo bari mu ne gis nga dee dafa bari sabab moo tax dee bari bés bu set ngay dégg diw deena diw deena diw deena ba nga dee yow waaye ku nekk ci ñun na ko préparé euh, bil munasabati ñuy jaale suñu euh, waa kër Baye Mbaye Seck di góor goo xam ne góor gu baax la gu yiw barke démb bi ñu koy ñaanal ci zawiya bi man dama wax ñi ma toogal ne ah man de suma fi jógee danaa soppeeku ndax yu baax yi ma dégg ñu wax ko ak def gim ko def ànd ak effacement te alxaaji Samba Cissé tudd ko eh, góor gi Cheikh Thiam tudd ko eh, góor gi eh, naka la tuddati